loolu day lu ma jaaxal la ndax man daal ñaari jëmm laa gis ñu dugg ci biir armeel bi doon defar kenn génn na kenn ka des fa daal loolu laa gis nit ñi moom dogu rekk ci ne kenn duggoon te génn di suul ma ne man daal naa taxaw fii ba xam yàlla dana ma xamal dara ci mbir meem déet ndax mankat kat lii su ma ci wéyoo noonu rek yàlla bu mu andi sikk ci sama xel ak sama diine lii daal bu wéyoo nii rek yàlla bu ma jaxasoo rek sama xel jaxasoo sama diine jaxasoo ndax man daal ñaari jëmm laa gis ñu dugg ci biir kenn laa gis mu génn bàyyi fi kenn mel na kon dañoo suul ñaari jëmm néew bi ak kenn ku duggoon ca biir di defar nee nag yàlla dogal bàmmeel bi daldi di xar nag am jëmm ju ca génne dal ma woon gannaaw di dem ma ne ko ah waat naa ci yàlla mi nga xam ni moom ngay jaamu faaw nga taxaw ma laaj la waaye nanguwumaa geesu ma dellu ne ko waat naa ci yàlla faaw nga taxaw ma laaj la dellu ko waxati ba mu ñetti yoon nag mu door a geesu ne ma waaw yow yaay ibnu nasr assania ne ma ne ko waaw man maay ibnu nasr assania mu ne ma xamoo ma ne ko déedéet xaw ma la de mu ne ma man ak saa moroom dañuy yaari malaaka yoo xam ne danoo bokk ci malaaka yërmande yi yaari malaaka lan yoo xam ne daal yàllaa na jox ndigalul képp ku xër ci topp sunna bu faatoo ba dugg ci bàmmeelam na ngeen nekk ak moom ca biir sako ba mu tontu lañ koy laaj yéen ngeen door a génn dem Ibn Nasr nee na naka mu ma tontu loolu nag dal ne mes dem wa xukkiya nettaleef na xan shaqiqin albalxi yi xaala mu ne talab naa sàkku nanu diyaa alxubóori leeruk bàmmeel ya fa wajadnaahu te nu fekk ko fii salaati léewi ci julli guddi wa talab naa nu sàkku jawaaba munkarin tontul munkar wa nakiirin ak nakiir fa wajadnaahu te nu fekk ko fi xiraatil qur'aani ci jàng al qur'aan wa talab naa te nu sàkku xuboora siraati jéggi siraat fa wajadnaahu te nu fekk ko fi sawmi ci koor wa talab nu sàkku dullal xarsi keruk aras fa wajadnaahu te nu fekk ko fil ci ak wéet ku ñu wax shaqiq albalxi yi ku siiw la nee nañu waxoon na ne danoo ñaanoon suñ boroom mu xamal nu luy tax am leerug bàmmeel maanaam luy tax buñ duggee ci suñ bàmmeel rekk fekk ko mu leer naññ naññ suñ borom nenu julli guddi julli guddi mooy tax bu ngeen duggee ci seeni bàmmeel fekk ko mu leer nàññ nu sàkkuwaat ci sunu boroom luy tax a mën tontu yaari malaaka yi laaj ci bàmmeel mu ne xanaa jàng alquran bari la jàng alquran mooy tax boo duggee ci bàmmeel tontu yaari malaaka ya yomb lool nu sàkku ci sunu boroom luy tax a mën jéggi siraat bu gaaw a gaaw a gaaw mu ne koor koor bari la woor mooy tax jéggi siraat bu gaaw a gaaw yomb la mu ne it nu sàkku ci sunu boroom luy tax bu ëllëgee nu bokk ci ñi yàllay keral ca keruk aras ga suñu boroom nenu xanaa bari loo wéet di ko yàlla ñeme wéetaay wéetal yàlla yi kese mooy tax bu ëllëgee yàlla boole na ci ñamuy keral ca keruk aras ga foofee ca bis penc lii sëñ bi def na ko ay way danga ko di gis sax ñu bind ko ci yenn téere sëriñ bi na ko ci soñ ba waye wa fi shajaratil yaqini nekk na ci shajaratil yaqin ànnal mu'mina naka aji gëm ja mën na it innal mu'mina boo ci tàmbalee isa udiha ndeem tegeef na ko mooy tëraleef na ko fii xabrihi ci bàmmeelam ataahu dikkal ko malakaani yaari malaaka aswadal wacci yi aji ñuul kanam asraqal xaynayni yi aji xërje ji ñaari bët maanaam yi aji wert ñaari bët sawtuhuma ñooñ seen kàddu karra adi mi ngi mel ni ki donnu alqaasifi buy aji fàq wa basaruhuma te seenub gis kal baraqi mi ngi mel ni ki melxat alxaatifi buy aji fëkk yaxriqaani danañu xotti al arda suuf si bi an yaabihima ci seeni bañ fa yatiyaanihi te ñu koy dikkal min xibali rasihi ci wàllu boppam ba fa taqul tey wax salaatuhoo julleem nga ne laa sabila déetu yoon déet wenn yoon lakkumaa di leen ñeel ilaa xibal yi jëm ci sama wàll faxad kaanat nekkoon na salaatuhu julleem ga billay li ci guddi wan naxaari ci bile tëddukaay fa yatiyaanihi te ñu koy dikkal min xibali yaminihi ci wàllu ndeyjooram fa taqul tey wax sadaqatuhoo saraxam sa ne laa sabila dit aw yoon lakuma di leen ñeel yéen ñaar ilaa xibali jëm ci sama wàll fa xadd di saraxe xadaran ngir ci tëddukaay fa yatiyaani koy dikkal min qibali chimaali ci wàllu càmmooñ ba fa yaqul tey wax saw mu hoo kooram ga ne laa sabila déet wenn yoon lëkkuma di leen ñeel ilaa qibali jëm ci sama wàll fa xadd kaana nekkoon na yajoohu di xiif wa ya atashu te muy mar xadaran ngir wattandiku min hadal madjahi ci bile tëddukaay fa yuqidaanihi te ñu koy yee kama yuuxazu ni ki ñuy yeexe annaa imu aji nelaw fa yaquulaani te ñuy wax laxoo ñeel ko maa taquulu ana loo wax fiiha dar rajuli ci jiliwaay allasi ji nga xam ne boxi sa yónnee foon na ko fiikum ci yéen fa yaqul tamu wax ne ushidukum maa ngi leen di seeraloo ne annahu naka moom rasulullahi ndawul yàlla sallallahu alayhi wa sallam unsila wàccee foon na alayhi ci moom alquraanu alquraan wa amantu te ma gëm bihi ci moom wa saddaqtuhu te ma dëggala loon ko fa yaqulaani te ñuy wax la xoo ñeel ko xista dund nga mu'minan mbir mu ngay aji gëm wa mitta te faatu nga mu'minan mbir mu ngay aji gëm mais boo demee ca téere bi tudd shajaratul yaqiin wax na fa ne ki gëm yàlla day buñ ko tegee ci biir bàmmeelam maanaam bu ñu ko sóolee ba noppi yaari malaaka yi yàllay digal ñu laaj ci bàmmeel dañu daldi ñëw ñoom nag seeni kanam day ñuul seeni bët xër géej gi maanaam mel ne daa wert seen kàddu xumb lool mel ne ak dënnu seeni bët nañuy xoolee day waar lool mel ne melxat guy gëf di ray ray te buy ñëw sax seeni bëñ lañuy xottee suuf si bu ñëwee nag fekk aji gëm yàlla ji ci bàmmeel bi dañ koy bëgg awee ca wetu bopp ba waaye julli daan julli moom jullit bi jëmm julli gam daan julli mooy taxaw temm ne leen déedéet fii daal moom du ngeen fi jaar ndax kii dafa gëm yàlla daan julli guddi daan julli bëccëg ndax rek ragal tër deme demee nii muy tëru bàmmeel bii kon nag man julli duma leen bàyyi ngeen di awee ci wàllu bopp bi di àgg ci moom su ko defee yaari malaaka yi ñëw bëgg ko awee ci wetu ndeyjoor bu fekkee daana saraxe moom jullit bi sarax sam daan saraxe mooy daal di jàmmaarloog yaari malaaka yi ne leen déedéet loxoom ndeyjoor bii ci la daa saraxee ngir yàlla te ragaloon turaay bi dong moo taxan mu daa ko def kon nag duma leen bàyyi ngeen jaare fii di àgg ci moom yaari malaaka yi ñëw bëgg a jaar ci càmmooñ koor gam daan woor moom jullit bi daldi di jàmmaarloog yaari malaaka yi ne leen déedéet duma nangu ngeen awe fii ci man ndax jëmm ji daa di xiif di mar ndax rekk ragal tëraay bii kon nag duma bàyyi ngeen jàll ci moom ndegam yaari malaaka yi àgg ci jëmm ji jafe na leen dañuy fexe rekk ba yiire ko ba mu yeewu mooy dañuy fexe rekk ba néew bi xam ne ñoom ñaar ñëw nañu te laaj ko moo leen yëkkati ñu daldi ko ne ana wax ci ki yàlla yónni woon muy ndawam Muhammad mu ne leen dama gëmoon ne yàllaa ko yónni gëm alxuraan ji ko yàlla joxoon daa ko jëfe it kem sama kàttan ñu ne ko yow day da dund ci gëm yàlla faatu ci gëm yàlla kon nag am nga tawfiq faidatun lii njariñ la waru ya netleef na xan abi hurayrata radiallahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dana wax allahu yàlla taxalaa kawe na ne laa yaxruju du génn xabdun ab jaam min ibaadi ci sama jaam ñi fi duniyaa ci àdduna wa anaate man uriidu danaa namm an axfira ma jéggal laxwañeel ko illaa wa aq tassu ndare nga xam ne danaa fayantoo min ci moom bi kulli sayi atin ci yépp ñaawteef xamilahaa woo xam ne jëfoon na ko bi saqamin ci ràgg aw marodin wala tawat aw jadbin wala bekkoor aw dayxin wala ak xat fii ma inchatihi ca dundam ba aw bi ma wala ci loo xam ne yusiibu wa dana ko jot min xammin ci njàqare wa in baqiya ndeem des na shay'un dara min sayyi'aatihi ci ay ñaawteefam shuddida kon taraleef alayhi ci moom xindal mawti fa faatu ga xataa yalqaani ba mu taseeg man wala ata te déet wenn ñaawteef alayhi di ko warati min sayyi'aati yi ci ay ñaawteefam waxi sët yi giñ naa ci sama tedd nga wa jalaal ak sama màgg laa uxriju du ma génne xabdan ab jaam min xibaad yi ci samay jaam mina duniyaa ci àdduna wa anaate man uridu dana namm an laa axfira ma bañ a jéggal laxooñeel ko illaa fatantuhoo ndare ma fitnaal ko bi li xasanatin ci yépp yiw xamil haawo jëfoon na ko bi sixatin ci ak wér fii jasadihi ci yaramam aw faraxin wala mbégte yusiibuhu moom dana ko jot aw saxatin wala ak yaatu fii risqihi ci wërsëgam fa in baqiya ndem des na min xasanaatihi ci ay yiwam shay'un dara xawwantu ma wayafal ma yombal xalihi ci moom xindal mawti fa faatu ga xataa yalqaani ba mu taseeg man wala xasanata te déet wenn yiw laxoo di ko ñeelati ne lii kat njariñ la lu mat a xam abu hurayrata la ne yonante bi de moo waxan ne saa borom day day wax ne samab jaam su ma ko bëggee jéggal ba nga xamee ne su duggee ci bàmmeel dafa fekk lu may jàmm damay seet lépp lu mas a def ci lu ñaaw ma teg ko lu ko ko wàcce benn ma teg ko tawat mbaa bekkoor mbaa dund bu naqari mbaa yeneen tiis rekk ba nga xam ne lépp lu ma a def ci lu ñaaw rekk lépp wàcc na ko su fekkee nag teg naa ko xeeti tawat ak xeeti bekkoor ak xeeti dund yu rekk njàqare waaye taxul nag ay ñaawteefam jeex kon bu tolloo ci faatu ma mettil faatu ga ba nga xamee ne lépp lu defoon ci lu ñaaw rekk wàcc na ko nga xam ne su ñëwee daal njëggal ak yërmande rekk rek la fiy fekk mu teg ca ne waat naa ci sama tedd ak sama màgg ne sama jaam ñi koo ci xam ne bëgguma laa jéggal damay def loo def ci lu baax ma wecceel la ko fi nga nekk ci àdduna wérug yaram ak jàmm ju bare bari mbaa wërsëgu yaatoo yaatu mbaa pal ak daraja ju réy réy su ma ko defalee yooyu yépp nag te taxut ay baax baaxam jeex ma bàyyi ba muy faatu ma woyafal faatu ga lool ba nga xamee ne rek bu agsee fi man daal day mel ne mësta def dara lu baax ba noppi nag ay ñaawteefam rekk des ndegam nar ma ko woon a jéggal nag ma man koo def laa ko bëgg a def addis boobu tegtal la ci ne yàlla moom lépp lu mu nar rekk mu yomb lu mu narul rekk mu jafe lu mu nar rekk daldi wut sabab ya koy taxa am lu mu narul it daldi wut rekk sabab ya koy tee am wa fil xadis nekk na ci hadis maa min muminin amul jenn aji yushaaku kook def na ko jam bi shawkatin ci ak dég illa rafaha ndare bu yëkkatee allahu yàlla laxoo ñeel ko bihaa ca moom xasanatan yiw waxatta te mu sippee bihaa ca moom an walis ko sayi atan aw ñaawteef waxadu xiila waxees na ne sax laa xayra déet aw yiw fii badanin di nekk ci aw yaram laa yusiibuhu wow du ko jot al asqaamu jàngoro ya wala maalin du alal laa yusiibuhu joj du ko jot an nawaibu xew-xewi jamono intaha mat na min shajaratil yaqin mu ne addis ba nee na ku gëm yàlla lu ko dal rek ci xeeti metit ak lu koy tiis donte sax ak dëgle gu ko jam faw rek yàlla faral ko ca aw ñaawteef bindal ko ci aw yiw yëkkatil ko ca dara ja ku gëm yàlla moom lu ko yàlla teg rekk ci xeeti tiis ñàkkut lu tax benn muy bàkkaar bu ko bëgg a faral ba mu set mbaa bëgg a yëkkati ku jaam ku amuli bàkkaar moom biñ ko tegee nattu rekk kon bëgg a yëkkati dara jaam moo tax mu ne nee ñu sax yaram woo gis yàlla du ko teg jenn jàngoro xamal ne kon yàlla bëggalul ko aw yiw ku yàlla nar ci mu aw yiw rek faaw mu lay teg ay nattu ci sa yaram mu ne it alal joo gis mu ñoŋ rekk dara laalu ko xamal ne yàlla naru ca aw yiw yow bëgg a wax ni ab jullit moom faw rekk yàlla di ko nattu ci alalam yaramam ak njabootam ndax rekk bëgg a yëkkati dara jaam mbaa bëgg a wàcce ay bakkaaram kon jullit bi day ñaan wér ak jàmm ak xéewal waaye nag bu ko yàlla nattoo ci yaramam mbaa ci alalam na rekk ku gëm yàlla moom faaw rek yàlla di ko nattu ci lu demee noonu faslun li ak dog la fii zikri ahlil xilmi ci tudd ñooñ xam-xam qaala wax na rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam maata ndem faatu na alxaalimu aji xam ja sawwara nataal allahu yàlla ilmahu xam-xamam ba ci melaw góor koy wéttali ilaa yowmil qiyaamati ba bis penc anhu wëlis ko xawaamal ardi waroom tooke yi nekk ci suuf si day wax ci dog bii ngëneel yi nga xam ne moom la yàlla lay jagleel woroom xam-xam yi ak gaa yu baax yi bu ñu duggee ci seeni bàmmeel nekk foofee ca barsax mu tàmbalee ko ci wax ne ku xam te jëfe xam-xam ba bu duggee ci bàmmeelam yàlla day soppi xam-xam ba jëmm ju rafet-rafet mu di ko li ba bis penc nga xam ne yi dox ci suuf si mën na jiit ak jaanaw yi demee noonu sax bu jëm see ci jëmmi boroom xam-xam boobu nga xam ne moo faatu nekk ci bàmmeelam jëmm joojee koy wéttali mooy dàq yooyule ba duñu agsi ci jëmmam ji nee loolu addis la fil xabari nekk na ci xabar aw xaa wax yu woon na allahu yàlla ilaa muusa jëm ci muusa alayhi salaam ko taxallam xam lul alxayra aw yiw waxallimhu te nga xamal ko annaasa nit ñi fa indi naka man mu nawirun aji leeral laa li muallimi la ilmi ñeel way jàngale xam-xam ba mutaallimihi ak way jàngam quburahum seeni bàmmeel xataa laa yastawxisoo ba duñu njaay àllu maanaam duñu wéet rek fii makaanihim ci seen béréb mu ne nee nañu yàlla daa wax yoon Muusa alayhi salaam ne ko del dolli ko xam lu baax te di ko xamalaat nit ñi ndax man ndax képp kuy jéem a xam lu baax ak kuy jéem a xamal nit ñi lu baax boo duggee ci sa bàmmeel dama la koy leeralal defal la fa lu lay wéttali ba boo wéet foofee nga nekk wa fil yi nekk na ci hadiis man kafa ku fekk adaahu loram naa ci walis nit ñi kaana kon mu nekk xalallaahi di loo xam ne yàllaa ko warlu an yakuffa mu fekk an walis ko adal xabri lori bàmmeel mu ne addis ba nee na ku fexe ba bañ a kenn ci doomi aadama yi yàlla faye la boo duggee ci sa bàmmeel du bàyyi dara mu lay lor fekk sax addis ba day wax ne jullit balaa nekk jullit dëgg-dëgg ay mbokki jullitam dañuy mucc ci lori loxoom ak lori làmmiñam waxu ki ya net leef na anil yaafi an yi jële ci alyaafi yi an baadil awliyaa yi jële ci lenn ci wàllu yi xaala mu ne saaltul laajoon naa allah yàlla ay yuriya nii mu wan ma maqaamaati ahlil maqaabiri maqaamay ñooñ armeel ya fara aytu ma gis fii laylatin ci ak guddi minal layaali ci guddi yi alxuboora bàmmeel ya xadin xachahat ñuy muriku wa ida minhum amtu lu may am na ca ñoom naa imun aji nelaw xalaa sun dusin ci kaw sooy bu woyof wa minhum bokk na ci ñoom it maanaam am na ci ñoom naa imun aji nelaw xalaa xariirin ci kaw sooy wa diibaajin ak sooy bu tal wa minhum am na ci ñoom naa imun aji nelaw xalaa rayxaanin ci kaw gët wa minhum bokk na ci ñoom naa imun aji nelaw ala saririn ci ko ab lal ala saririn wa minhum bokk na ci ñoom daahikun ajiree wa minhum am na ci ñoom ba tey baakin aji jooy faxultu ma ne yaa rabbi yow sama boroom law shiita doonte sooboon na la saawayta nga yemale baynahum seen diggante fil karaamati ci teraanga fanaada daldi woote munaadin aji woote min ahlil xubóor ca ñooñ bàmmeel ya yaa fulaanu ashaabu sundusi ndaal waroom sooy ba wayaf fahum ñoom ahlul xuluxi ñoo di jikko ja alxasani ja di rafet wa amma ashaabul xariiri ndaal waroom sooy wa diibaay ji ak sooy bu tal ba fahum ñoom ashuhadaa u di way deeña ca jihaat wa amma asxaabu rayxaani ndaal waroom gëtt ga fahum ñoom assaa ñoo di way woor ña wa amma asxaabu sariri ndaal waroom lal fahum ñoom almutaxaaboona ñoo di way soppante ña fillaahi ci yàlla wa amma asxaabul bukaayi ndaal waroom jooy ga fahum ñoom almudniboona ñoo di way bakkaaru ña wa amma asxaabu daxki ndaal waroom reega fahum ñoom ahlu tawbati ñoo di ñoom tuub ga xaalahu wax na ko asuyootiyu fii bushral ka iib ku ñuy wax an yaafihi nee na am na ci wàllu yi ku wax ne dama ama sañaan yàlla mu won ma ña nekk ca armeel ya ñu ëppante ay màqaama am genn guddi nag yàlla won ma armeel yi ma gis armeel yi muriku am ci ñoo xam ne ñu ngi tëdd ci kaw yére sooy bu woyof te rafet di nelaw am ci ñu tëdd ci sooy bu tal di nelaw am ci ñi nelaw ñoo xam ne daal loolu yàlla defal ci gët lu ne xet lu ràññiku la am ci ñoo xam ne ñoo tëdd di nelaw ci kaw lal am ci ñuy ree am ci ñuy jooy ma ne saa boroom yow day sa coobare ngay jëfe bu la neexoon day nga yemale leen ñoom ñépp naka ma wax loolu am ku bokk ci ñu nekkoon ca bàmmeel ya daldi ëwu ca kaw li kaw ne ma yow diw ñee nga séen ñu tëdd ci kaw sooy bu woyof ba day mooy ñu ame jikko yu rafet ñee nga xam ne ñoo